moom ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp finalement ndox yi moom si am si dara euh, ñëw rek pour wax si juste rek en tant que euh, activiste en tant que membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs fekk si waa euh, Y'en a marre ak suñu siste brave siste ak waa Fouta Tampi yëpp nga xamante ni dañoo def loo xam ni ñun gis nañ ni daanaka xaw mi ngi bëgg yàgg def na 9 ans wala 8 9 ans Macky Sall mi ngi def 9 ans mi ngi bëgg def 9 ci pouvoir Sénégal ci image yu Macky di joxe image boo xam ci Fouta loolu amul du dëgg te amuñu woon en fait occasion boo xam mën nañu ko wane parce que dañuy wax ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam mënuñu jël place waa Fouta ñun taxaw en tant que activiste dem xeexal leen seen xeex te ñoom ñooy dund li xam moo nekk foofu noonu léegi nag loo xam ni ñoom dañu ko réussir woon ci ay image yoo xam ni en fait euh, du dëgg mooy comme li Farba Ngom di def nga gis yeneen di ko def biir Fouta jaay doole beeg ñoom yàlla daf leen natt ñoom gàcce ba ñu amee ay jàmbaar yu mel ni euh, Fatoumata mi ak yeneen membre yi nekk si ginnaaw tukulóor nag dafa am lu yàlla bind si fu yàlla bindee tukulóor tukulóor loo ko mën a waxal bëggul fen bëggul sàcc am na diine te yii bu nekkee si nit man gis leneen la xam ne am war na manqué na ko loolu nit mën a waxal tukulóor fuuta laa gis récemment yàggul ay nit di sàcc béta kii ay euh, comment dirais-je des vol de bétail yi ni ñu jàpp leen dagg seen loxo comme ni ko diine waxee man fuuta laa ko gis li ma wax yàggul matul 3 mois c'est-à-dire pour wax juste pour wax leen ni ñooñu dañu ay valeur am lu ñu gëm kon Macky Sall image bi muy prôné li muy doxal Sénégal loolu du image yu Fouta alhamdulilah am nañ ñoo xam ne mën nañu dimbali ci wane ni image yu Fouta du loolu Macky Sall di wane. dañuy ñëw si Sénégal kër gu amul kilifa Sénégal dafa dañ toll Sénégal boo xam ni kër gu amul kilifa la kër gu amul kilifa nag day am fi ñuy jaay yamba am foo xam ni amul buntu kër heure bu nekk ngay baali foofu la Sénégal toll ak Macky Sall en réalité parce que du leader du responsable. léegi nag bu fekkee ni askan wi ko fal moom nekkul ki fal matewul li mu doon ci ñun ñu jug dem récupérer li ñu moom récupérer sunu Sénégal balaa Macky Sall di ko yàq ndax essayé na ko nu ne ay Aliou Dunguru Sow di wax jaasi fii lu nekk def nañ ko pour indi problème entre Haalpulaar yi ak ñeneen ñi tolo loolu amul Sénégal mënul nekk Cheikh Omar Foutiyou amul fu mu tànkam ci ci ci Sénégal ci kër kër sëriñ sëpp teg na fa tànkam ñaanal leen avant seen waajur avant ñoom ñuy ñëw fii loolu ñëpp xam nañ histoire Cheikh Omar Foutiyou donc Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar le message est mooy ñun dañuy jug jàkkaarloog Macky Sall que amul benn parti politique boo xam ni moo tax moo nekk si ginnaaw kenn waa Fouta ñoo am seen problème Sénégal ñoo am seen problème jug di ko lijjantil seen bopp politicien bu ñëw nduróog ñun li ñuy xeex ñu ànd ak yow soo nduróog ak moom ñu tegal la nee waaw ànd ak nag ku nduróog yow ñu ñu nduróog ñooy ànd comme ni ko olof di waxee donc c'est très clair loolu message dafa am solo léegi nag li ma bëggoon ñu xam ko mooy en tout cas ñun les activistes ñi ngi ànd ak waa Fouta ñu ngi ànd ak fépp nit nekk ci gox ci ci Sénégal ci ñaxtu jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy dund ànd ak Macky Sall fexe mu quitté pouvoir bi ba nga xam tournée bi day nekk tournée tàggatoo pour jóge quitté pouvoir bi avion bi nekk avion bu muy dawee jógee ci bopp réew loolu kese moo solo donc loolu mooy message ma bëggoon lancé di wax euh, di wax ne ñu bàyyi xel ni le le 23 juin incha allahu rabi Aliou Sané mercredi bii la dañuy joxe rassemblement bu mag

kon ñun gisuñu keneen ko xam ne moom taxaw na image boobu noonu gën ko yow 23 juin Sénégal yëpp ko moom Sénégal yëpp a génnoon donc may wax ni nag nañ ko ñun ñi bàyyi xel ñu ànd ñun ñëpp manifesté wu di invité waa Fouta Tampi mouvement yëpp ñu ànd wane rassemblement boo xam ne wane ni tey waalo gën a aay Sénégal li ñu doon jooy tey la gën a metti te dara changé wul te ñu nag Macky Sall ba mu quitté pouvoir bi ci nii wala ci nee